wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidi al awalin wal axirin sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli auzu billah bismillah inna waliya allahu lazi nazala alkitaabu huwa yatawalla saalihin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a ci nuyoo yépp te mooy asalaamu aleykum wa ñoo ngi leen di baal baalu àq waaye noo ngi leen di baal àq di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp di sant ak a dollee sant sunu yaakaar ñun ñëpp cheikhuna cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul di ñaanal aka doollee sant aka doollee fàttaliku aka doollee bëgg jàmbaaram ja liggéeykatam ba di cheikh ibrahima fall lamp babil muridin ñoo ngi nuyu ñu teew ñëpp ci baas bi di leen baal àq yéen ñëpp di leen baalu àq yéen ñëpp di jéggulu bu wér di jéggulu ci xat-xade gi te yu bari yi tey yàlla seere na sori woon nañ loolu ñoo ngi woon ca sagata suñu dëkk waaye dañoo xëy dem lañuy def noppi ñooñu kuwaat ñëw ngir bis bi jóge fa jaar daarul moxti jaar Touba dugg ñëwaat Dakar bis bu xat lañ am tey barki sëñ Touba waaye dañoo bokk ci liggéey bi bokkin woo xam ne bu nekkoon ba bitim réew ñu soxlañu ci bis bi danañ bàyyi lépp ñëw ndax ñu amuñu lu daayira bi nu yooyu ñoo ci jiital sëriñ Jili Mbàkke mii di sët ci sëriñ Abdou Dia Mbàkke Diyooli sëñ Abdou de Mbàkke di yooli ma soxna Fat Dia mi taawu Sëriñ Tuubaa ñu bokk lépp sëñ ji li ñoo ngi lay ziar la jox sa wàccuwaay di nuyu sëriñ Baara Mbàkke mi fi jóge léegi di sëj sëñ Maam Mor di nuyu sëriñ euh, Fàllu Mbàkke mi fi jóge léegi di sëj sëñ Maam Mor Jaara ak ñi fi teew ñëpp di nuyu waa daayira bépp di nuyu sëriñ Moustapha Xumma di nuyu sëriñ Modou Xumma mi jëti daayira waaye di nuyu soxna yi soxna yi nag dañu ci jël soxna caaj fay mi nga xam ne ak jàmbaaram ak bëggam sëriñ Tuubaa ñëpp dañ koo séer ak ak bëggam sëñ Fallu ak soxna Faat Ba Njaay ak soxna ñu àndal yëpp ñoo ngi leen jox seen wàccuwaay temps bi ñu jox xat na lool mun ñu sax waxtaan yàlla seere na ko thème bi ñu jox mën na cee waxtaan ñaari waxtu du jeex ndax thème bi ñu jox mooy sëñ Mourou Moustapha lañ bëgg ñu waxtaane ko ak sëriñ seex Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Mbacke Madina loolu nag xaju fi sëriñ Modou Moustapha mooy taawu sëriñ Touba moom lañ tuddee bis bii tey thème bi ñu jox di waxtaanee kan mooy sëriñ Modou Moustapha njabootam nag ku nekk xam ne ne du sëñ Seex ak sëñ Mbàkke dina képp waaye dañoo taamu waxtaan ci ñoom ñaar ndax boo waxtaanee ci ñoom ñaar mel na ne mel nga ne ko waxtaan ci ñëpp kon dañuy tënk ngir jëkkateeg waxtu wi ndax dara xaju fi yitte yi bari na te ñi war a barkeelu bari na te ci lañ bokk fukki minit sax bu ñu ko doy na sëkk ndax xam nañ ñu miin nañ ñu yaakaar naa kenn ñu présenté kenn kon ñun lu ñu wax doy na ku woote bis nag danga war a war a yaatal ñun yaatal képp moo nu war Serigne Cheikh Diop jërëjëf ci waxtaan wi nga xam ne yaa ngi ci joxe addiya kan mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha cant gi ñuy def mooy cant sëñ Fallu lañuy ñuy cant waaye dañ koy parrainé at mu jot kenn ci kilifa yi ren nag ñu sàkku ñu paree ne ko wala ñu tudd ko Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Serigne Touba di taawam di léppam waxtaanee nit ku baax sox dee def dangay ngay yittewoo ñetti jiim jiim bu njëkk ji mooy jikkoom ñaareelu jiim mooy juddoom ñetteel bi mooy jëfam te jikkoo ak juddu dafa nekk lu am solo lool mbokk yi buñ delloo ci alxuraan. yënt bu ñuy wax yënt yàlla noox dund na mille cinq cent ans junni at ak juróomi téeméeri at la noox dund woote neuf cent cinquante ans juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk juróom-ñett fukki ni dong ñoo ko gëm keroog bu mu demee ba tiit ba jàq ba jaaxle dane rabbi laa tadar ala al ardi min al kaafirina dayaara innaka intazarahum yudillu ibadaka wala yadu ila fajin kafaara yàlla maa ngi ne ñaan àdduna bu fi bàyyi kenn na nga faat ñëpp koo fi bàyyi ci ñi fi war a des dañ fi nekk lu ak kàccoor ak di jur ay kàccoor keroog bi mu bi ko yàlla waxee sa euh, yettal gaal nga dugg ci yaa ku la yaakaar ak ku la gëm am yettee gaal ci lu gaaw rek te tënku ba dugg ci dafa am doomam ji ñuy wax kanaan nangu ta dugg bi mu bañee dugg moom kanaan noox donte yontu la waaye nit la xolum nit jàpp ko mu taxaw yàlla ne ko demal mu taxaw ne ko am na ko des yàlla ne ko kenn desul mu ne ko ko yàlla ne ko ku des mu ne ko sama doom yàlla ne ko innahu min innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru saalih ki ngay wax bokku ci sa njaboot kooku du jëf ju baax kon da ngay fi da ngay da ne bokk fu baax dafa am solo sëñ Mourou Moustapha mii nag ñi fas yéene waxtaanee daa bokk fu baax ndaa ma ko séq ak kokki kan mooy wajuram bu jigéen mooy soxna Aminata Lo mooy wajuram bu yi mooy doomi sëriñ maxtaar bintaloo bu ñoom re waaye lu jiitu mu ñëw ci kër sëriñ bi dafa dem ci kër ku ñuy wax sëriñ ma jang faaloo moo ko njëkk a yor moom sëriñ ma jang faaloo ba am ci sëriñ Mouhamadul Mokhtar ci la wàcc liggéey sëriñ bi koo jël waaye sëriñ ma jang faaloo mook sëriñ bi dañoo nekkoon ay wóllëre dañoo nekkoon ay xarit am bis sëriñ Touba ñëw seet ci sëriñ ma jang faaloo mi nekkoon sëriñ soxna Aminata Lo fas wi sëriñ Touba yor fas wi mu yoroon soxna si da koo may ngooñ may ko ndox wëggu ko toppatoo ko ba lépp mat Sëriñ Tuubaa yére yi mu yoroon dafa dafa aajowoo ku ko yeesal ku ko fóot mu jox ko sëriñ ma jang faaloo ne ko damaa bëgg sa soxna yi na ci kenn yeesal sama yére yi booba kum ko sëñ bi sëñ ma jang faaloo kum ko wax ci soxna yi rek dangay gàntal soxna Aminata Lo moo ne ñokket ne ko de yére yi ku baax ki yàgg naa koo dégg saa su ñëwee ci sa kër bëgg ku ko liggéeyal man mën naa koo fóot keroog moo jël yëre sëñ bi fóor ko ba lépp mat mu paase ko gome ko jébbal ko sëriñam di sëñ ma jëng faaloo ne ko dama jox ko sëriñ Touba sëriñ Touba bi yëre yi ñëwee da cee bég lool nekkoo ko ma jëng faaloo anakat moo toppatoo lii sama yére yi mu ne ko sama soxna su ndaw suñuy wax soxna Amis Lo mu ne ko mu ne ko sëñ Touba ne ko laaj ko lu mu bëgg ma ñaan ko yàlla defal ko ko ndax li mu def sama yëre yi dafa neex yàlla neex yonent bi sëñ Touba bi mu waxee li sëñ Madiang Fallo sëñ Madiang Fallo ñëw ne ko yow soxna Aminta Lo am nga rëy sëriñ bi ñëpp di wër ñaanam nee na nga wax loo bëgg mu ñaanal la ko ndax ni nga toppatoo yëre mi da koo neex soxna Aminta Lo ne ko lenn képp laay ñaan sa kër yàgg naa fi lool aw fi leer maa ngi ñaan damay damaa bëgg mu ñaanal mu am fi leer te soo ma dee soo ma dee soo fi dee am leer yàlla naa am ku baaxee ni moom sëñ Madiang Fallo ñëw wax ko sëriñ bi. sëñ Touba ne ko bisimilah jàmm loolu la wax ne ko mel ne man faat na man Ahmadou Khadim man nit dootu mel ne man waaye dinaa ko ñaanal mu am doom yoo xam ne ñëpp dañ leen dégg ci mbaax ak lislaam ñu teg fa ab diir soxna si am tout tànk muy sëñ Ahmadou Mokhtar Dieng moom lañ tuddee sëñ Ahmadou Mokhtar sëñ Ahmadou Mokhtar mii di xalifa sëñ Modou Moustapha bi soxna si bi bi bi sëñ bi sëñ bi wàccee liggéey nag soxna si dafa ñëw ci loxol sëñ Touba sëñ Touba am ci sëñ Modou Moustapha al Karim mi ñuy waxtaane ak sëñ Baara sëñ Modou Moustapha soo bëggee xam jikkoom ak jëfam bi ngi gane àdduna fukki fan ci weeru muharram tombeeg 17 septembre 1888 ca Daaru Salaam sëñ Mouhamadul mustafaa ci ak tënk ñi raw ko jàngal ñi raw kan mooy ñan ñoo raw ci réew mi te loolu kat firnde laa ci indi sëriñ daam Abdourahman loo moo ko njëkk a dalal baa jàngal ko sëñ daam kat am na loo xam ne ci yoonu murit kenn amu ko ko dul moom 1943 la wàcc liggéey bi mu wàccee liggéey sëñ Mbàkke Bousso moo ko doon jullee biñ koy rob ci biir bàmmeel bi sëriñ Basiru Mbàkke sama sëriñ moo ko nangu sëñ Mourou Moustapha moo téye tànk yi sëñ Fallu bopp bi moom rek ko am ci yoonu murit sëñ Abdourahmane sëñ Daam Abdourahmane jàngal jàngal na sëñ Mourou Moustapha waaye borom Daaru Muxti jàngal na ko borom Daaru Muxti yéen ñépp ko xam bàyyi sëriñ Moodu Xawa Balla ak Seex Xawa Balla Zubeyru Mixdaar sëñ Moodu Xawa Balla mi nga xam ne moom kenn dootu ko ràññee kenn dootu ko wax mooy kan wuy juróom di borom daarul moxti jàngal na sëñ Mourou Moustapha te borom daarul moxti kat borom masar moo ñu wax kuy moom borom masar moo ne man zaara cheykhiya ibrahima faati yura min al makarimi maala fil biladi yura man xalla dayfan ataahu li qalbin kama la la fi yura way kullu shay'in yajuuri fil mana wala naa yura borom masar nee na mboolem ki ñuy wër ci mbaax ak ci yaatu ak ci tabe boo ñëw ci borom daarul moxti da nga ko am borom daarul sëñ Tuubaa woo 1912 ne ko dama sañ ci dëkk bu ñuy wax daarul moxti cer lu fikkul dama koo amul kooku jàngal na sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha kon bi loolu lépp weesoo nag ba mu jàng ba géeju ba am xam-xam yaa ngay xamee maqaam sëñ Modou Moustapha ci mag ñi toppoon sëñ Tuubaa mag ñi toppoon sëñ Tuubaa ku mel ne Sëriñ Moussa Ka sëriñ Moussa dafa bëggoon sëriñ Modou Saba da ko gëmoon lool dafa am bis muy mu mu xéwlu guddi mu reer ba noppi di doxantu romb mbapat mbapat làmb yàgg làmb ak a yàgg dégg am ñi ànd ak mbër yu ndaw yi di way naan mbër mu ndaw allew la way mbër mu ndaw allew la nga way bi mu déggee way wi donte wayu làmb la moom xelam dafa dem ci mel ne mbër rek muy sëriñ Modou Moustapha bi bi ñu déggee waykat bi naan mbër mu ndaw allew la nga way mbër mu ndaw allew la nga way mu fent way ne faailun mufaalatun romb na manda xam ma laa bëgg a way romb naa fa làmb ja dégg ñuy tëbal ak a way seen mbër yu ndaw ña nga naa mbër mu ndaw allew la nga way man ma daal di way suñu mbër seen waxin wala bëgg a roy ahmadul ya daali yu kat pas-pasam balaa amee tey nga xam ne moom ci saasi rek dafa way sëñ Mourou Moustapha ci xeetu galañ ñu làmb boobu rek waaye sëñ Mourou Moustapha mooy koo xam ne sëñ Touba gërëm na ko na ko ñëpp xam sëñ Touba gërëm na ko sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ak sëñ Mbacke Madina bi ñu jàng alxuraan ba wàcc sëñ Touba sëñ Mourou dafa jàpp seen loxo indi leen ci loxol sëñ Touba ne ko Mbacke sa yu baax yi mokkal nañ alxuraan dama bëgg nga leen sëñ Touba téye sëñ Cheikh ba si yàgg mook sëñ Mbacke Madina ne na ngeen góorgóorlu baax a baax a baax ci jaamu yàlla ak jub ak jubal daan ne sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma mu ne ko Mbacke ma ne ko sëriñ Mbàkke Madina ma ne ko Mbàkke ma ne ko seen baay bii du li ma ko jur moo tax waaye gërëm naa ko biir gërëm naa ko biti sëñ Mourou Moustapha kon sëñ Tuubaa mi ñu yaakaar gërëm na sëñ Mourou Moustapha sëñ Mourou Moustapha mooy koo xam ne it na ñëpp xam ne wilaaya ak baatin mi ngi raw mi ngi yem ci sëñ Mourou Moustapha dafa woo ko ñuy wax sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Hamsatu Jaxate moom ku yéeme la te doy waar da ko woo jox ko junni dërëmi ngurdu ngurdu benn dërëm ba muy junni ne ko dama lay yónni ci sëñ Touba yow nag su ma la yónnee ci sëñ Touba yow bi ma yónni il faut nga am fit il faut nga ñeme ndax li ma lay wax dafa doy waar soo àggee nee ko ndonga moo koy siyaaree di ko jox addiya ndonga li nag amul tur amul sant day dagaan ci moom ngërëmu yàlla sëñ am sori jaxare ñëw ci sëñ Touba ne ko junni bii day dafa am ndongalu la ko jox ndongali la ko jox nag waxuma turam waxuma santam waaye day sàkku ci yow ngërëmu yàlla sëñ tubaa jël xalima gi te ko ci addi ji ab diir ne ki ma jox addi ji xam naa ko nekk ko sëñ Amsatu Jaxate ma ne ko Mbàkke mu ne ko liggéey xaalis bi dama la yóbbu ci liggéey sàngam soo neppee nga ñëw moo xam ki ma jox addi ji mooy kan ci man sëñ Amsatu Jaxate jël addi yóbbu ko ci liggéey ba ko sëñ wax ñëw sëñ Tuubaa ne ko oh, Amsatu Jaxate ma ne ko Mbàkke mu ne ko kër jox addi ji di Mouhamadul Moustapha sama mosa am na ngërëmul yàlla bu yàgg ko xëy Mouhamadul Moustapha Cheikh Abdoulaye jëf Diop jërëjëf bi mu ko waxee lii ne ko kaay ma wax la kuy wax Mouhamadul Moustapha ne ko diiru li ma nekk ci liggéey bi amul benn bis boo xam ne jant dafa fenk wala bala moo so duru sëñ Mourou Moustapha ñëw taxaw sama wet ne bàyyi yan ma liggéey bi ndax def na ci man tax mu attan ko te nga dem ñëpp am jàmm attan liggéey bi ne kooku la jox addiya ji kon Cheikh Mouhamadul Moustapha kat day koo xam ne yoonu murid ñëpp ko war a waxtaane waaye ñëpp war a gëm sëñ Moussa Ka nag dafa wax lu doy waar dane hël fil wara man shakka anna al Mustafa warisal xadiima wilaayatan doom moo di bàyyi sëñ Musaa Ka nee na ndax am na ci mbindéef yi yàlla bind yëpp kenn kuy sikk sàkka ne sëñ mënu Musaa moo doon sëñ Tuubaa daane doom di bàyyi daane fal Mustafa warisal xadiima bi wilaayatihi wa bi juudihi wa bi xilmihi doom moo di bàyyi maa ngi war ci yàlla ne sëñ mënu Musaa moo doon sëñ Tuubaa ci xam-xam moo ko doon ci lewet moo ko doon ci tabe daane nag doom moo di bàyyi kon doom moo di bàyyi kon sëñ Mounou Moustapha mooy sëñ Touba xarfan bi xarfin waaye mooy koo xam ne ñëpp ko gërëm ñëpp ko doyloo sëñ Fallu mësta tudd turam danaa sama mag ju baax ci lay wax soxna may Mbàkke nee na yéex naa xam ne sëñ Mounou Moustapha sama mag la damaa jàppoon ne sama taalibe bàyyi la ndax dañ daan jox ñu lekk ba suur mu jël yëréem dañu fomp leen seen taalibe bàyyi laa kooku sëñ Mounou Moustapha kon nag yàlla yàlla fay te gërëm ko te yokk ay yërmandeem ndax temps yi xat na dañuy waxtaan tuuti ci sëriñ Cheikh gen Gaynde Fatma ak sëñ Mbàkke Madina tëj sëñ Fallu doo doo joxe micro bi sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma da ngay dégg ñu naan ay sëñ Touba kenn laag nañu ber sëñ Touba nañ ko wéetal ba mu koy wax moom 1940 la ko wax jàpp 35 ba muy wax naan sëñ Touba kenn laag sëñ Touba un morom booba booba boo xamaguñ sax luy luy luy luy kàddu yooyu da ngay dem ci xasidaam gu mu tuddee ala xali xamaroon min naxwi Touba naa nga dégg mu naan fa huwa lazi axsana sataaru siratuhu wa juudahu amma awtaanan wa buldaana wa maa li ahnafa hilmun in qurinta bihi luqmaanu asrika hazal fadlu qad baana fi lfiqhi maalikuna wa fi ljuudi xaatimuna wa fi fasaxati yasri bi xasbaana sëñ Cheikh Mbacke nee na maa ngi waat ne bu dee ci fiq suñu imaam Malik mooy sëñ Tuubaa bu dee ci tabe xaatimul juud mooy suñ mooy suñ mooy mooy mooy mooy sëñ Tuubaa mooy suñ mooy suñu xaatimul juud sëñ Cheikh Mbacke nee na sëñ Tuubaa histoire am mboolem luy histoire bu bu yàlla di joxe moom la yàlla da ko ko may ba mu leer nañ ba mu rafet kon sëñ Cheikh Mbacke moom ber na sëñ Tuubaa bu yàgg waaye da ngay xool sëriñ Mbacke Madina man damaa dama ne man man Modou Diop laay wax de man gëstu naa jàng naa bari na lu ma xam billaahi wallaahi gisuma ko gën a rek ko gën rek ragal yàlla sëñ Mbacke Madina barki sëñ Tuubaa gëstu naa tukki naa jàng naa xam naa téere yu bari waa ma ku gën a ragal yàlla sëriñ Mbacke Madina barki sëñ Tuubaa sëñ Mbacke Madina bu daan tudd ab liir ab liir bu dee góor la da ciy loxo bu dee jigéen la da koy tiimale baaraamam liir bu jigéen laa ko liir bu jigéen da koy tiimale baaraam du ko danga ko teg loxo ndax gis ngeen kenn ku ragal yàlla àgg fii yéen yéen baabaas baas bi sëñ Mbàkke Madina am na lu kenn amul ci sëñ Tuubaa am na bis dafa xëy juróomi doomi sëriñ Tuubaa ñoo gane si ko juróomi doomi sëñ Tuubaa dafa xëy suba teel sëñ Murtalaa ñëw suba teel ñu dem ba tisbaar son asugaawaan ñëw ñu dem sëñ Abdul Xaadir ñëw ñu dem ba timis sëriñ Saaliw ñëw borom ko borom xel ko borom xabbaan kon sëñ Mbàkke Madina am na lu kenn amul waaye sëñ Mbàkke Madina seere yu doy waa dafa am ci moom 1980 80 80 80 87 86 la wàcce liggéey suma juumul bi mu wàccee liggéey sëñ Abdoulaye Mbàkke dane nañ toj barabu sëñ mënu subaa jenc ko fi coow li bari lool sëñ Mbàkke Madina bi mu wàccee liggéey sëñ Abdoulaye Mbàkke dane dañu toj bu sëñ mu Moustapha jën ci ko fi ñëpp di wax mu ne sàllaaw damay bañ ko ma jam waaye dañu war a toj barabu sëñ tubaa lañu war a toj dugal ko fi ndax moom rek moo ko yeeyoo sëñ Mbàkke Madina mooy koo xam ne sëñ Abdoulaye Mbàkke wax na lu wax na ci moom lu yéeme sëñ Abdoulaye 1900 1979 dafa woote ngan bu rëy ca ca ca Belel kilifa yi fi ñëw yëpp jërëjëf kilifa yi kilifa yi fi ñëw yëpp ci ngan gi ku ñëw rek da tëdd ñii di euh, xéwlu. sëñ Mbàkke ma dem dafa xëy di jàngal xoraan ba ngoon sëñ Abdoulaye yu yónni ku ñuy wax sëñ Miwunu Jaxate ne ko dama xoolal ma euh, gan ñi fi ñëw ak ñi bokk ci ëllu Mbàkke ba xam nuñ toogee bi gan gi ñëwee fekk ñii ngi tëdd ñii ngi xewlu ñii ngi yor nekk ci seen seeni mbir fekk sëñ Mbàkke ma dina di jàng alxuraanu karim mu dem ci seen daal ne ko day ñëpp a ngi toog nekk nekk ci ci xéewal yi waaye sëñ Mbàkke Madina dama ko fekk mu jàngal xuraan sëñ Blaat Mbàkke xam lu mu wax wallahi dane su ma doon sàkk sama bopp man sëñ Blaat damay damay su ma doon sàkk sama bopp damay mel ne comme suñu Mbàkke Madina man su ma demoon bay sàkk sama bopp sama jëmm dama ko nuuree suñu Mbàkke Madina suñu Mbàkke Madina taxaw nañ 1949 Serigne Bassirou taxaw ñu inauguré forage Medina Mbooba Senghor ñëw bi Senghor ñëwee Serigne Mbàkke Madina summi summi summi summi summi mbaxanaam ngir wolu maa ne ko doomi fa nekkoon Serigne Bassirou ne ko Serigne Mbàkke Madina solal sa mbaxana Serigne Mbàkke Madina xaw a xaw a bañ ma ne ko ndigal la sol ko mu sol ko ba noppi ma ne ko damay bañ sa bopp sengoor tege damay bañ euh, bëti sengoor tege ci sa bopp neen ndax bu ci tegee day folleeku gis li ma wax damay bañ bëti sengoor tege ci sa kaw bopp ndax bu ci tegee day folleeku bi mu noppee sengoor ne sëñ Basiiru kii mooy kan mu ne ko kii de suñ dooma waaye moo ñu gën sëñ Mbàkke ma dina ko yéeme ko doy waar la kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp temps bi xëcc fi ñu ñu ci sëñ Fallou rek doo ko joxe micro bi sëñ Fallou nag tey dama ca bëgg ni loo xam ne ñu bari dañ koy wax waaye yaakaar naa indi ko moom bu amee bëriwul dangay ngay dégg ñu bari naan sëñ Fallou sërif la sërif sëñ Fallou da ngay dégg ñu baree bari naan sërif la maanaam moom sëñ Fallou sërif yonent bi la tey nag dinaa leen indil maamam yépp wacca Moustapha ngeen xam ne sërifam moom du ay waxi kese waykat ba nee na ko jërëjëf sëñ Daawda Fall waykat bi nee na ko shérifun bun shérifun bun shérifun du xotti saatir du daw ku ko laaj ku ko laaj ku laaj may la fàllu xan niyu la woy juram mooy soxna xawa buso soxna xawa buso bintu ahmadu buso ibnu matabara ibnu ahmadu ibnu aliyun ibnu usman ibnu ibrahim ibnu ismail ibnu zakariya ibnu ismail ibnu suleyman ibnu alxasan ibnu ibrahim ibnu abdullahi ibnu haaruna ibnu muhammad ibnu abdulfatah ibnu muhammad ibnu aliyun bikri ibnu muhammad ibnu abi bikrin ibnu aliyun ibnu muhammad ibnu aliyun ibnu hasan ibnu muhammad ibnu abdulqadir ibnu moussa ibnu yahya zahidin ibnu daawuda ibnu moussa aljawani ibnu abdullahi almahdi ibnu seydina hasan ibnu seydina fatima fatimatu bintu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sëñ lu ab sërif bu wér la du ay waxi kese sërif la yonent bi mooy maamam maamam yaa ngi nii ku bëgg ma jox la kayit bi sëñ Fallu sërif la kon sëñ Fallu na ñëpp xam ne moom bul dara moom dañ ko war a jox addiye moom ndax moom Moustapha mooy maamam yaakaar naa ku mu neex nga jël li nga photocopie ko fu leer laa ko jële sëñ Fallu kon sërifam moom nekk na lu wér nañ nekk na lu kenn wérante sëñ Fallu nag dafa am ku ñuy wax sëñ Maodo ture di doomi sëñ Adi dafa wax ci moom lu doy waar nee na damaa xëy suba teel man sëñ Maodo Touré daal di dem Touba bi ma demee Touba dama fa ma fa fekk day wuute wut ak yénentu bu yénentu bu toog ay saxaaba tiim ko nan la ko waxee dane ataytu ila Touba fa alfaytu fa alfaytu sayidan yudaahi rasulullahi bayna ashaabihi fa alfaytu bahrayni jawdan wa xikmatan yow moo jubee maa ji na daawal xikmati nee na kama fekk Touba taalibi wër ko wuute wut ak yénentu ba toogoon Makka saxaaba yi wër ko kon nag ñu ngi ñaanal jàmm yéen ñëpp yaa sëñ Modou Fall Maraxib suñu xarit suñu soppee di wax ne temps bi xat na lool te dañ cee bokk te bëgguñoo xëccoo dara te suñu doom nday suñu xarit sëñ Abdoulaye Diop ñëw na euh, dañuy sant rek di góor góorlu di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf suñu yaay fi ñu daanele mooy ngeen góorgóorlu ci jàmm yàlla góor góorlu ci ak njub góorgóorlu ci bëggante te bàyyi soxorante rek ñaanante amul njariñ kenn ku nekk la la yàlla may sa morom na ko ko yéene te jàppale ko te kenn ku nekk na nga bëgg sa morom te bàyyi yàqante bàyyi jëwante bàyyi tooñante te góor góorgóorlu ci liggéeyal Serigne Touba nañu góorgóorlu ci liggéeyal Serigne Touba mbokk yi sëriñ ma Babou Gueye 1919 la wàcc liggéey 1919 bi mu wàccee liggéey Serigne Touba dafa ñëw ba ci biir pencum njaareem tiim ko daan ne baabu lu muy firi ñu ne ko bunt mu ne baa ma Babou géey bunt la ci bunti aljana ya daan baabu ma baabu géey day kaang la fóore la xamoon na boroom te daana ko jaam waaye tey lay xam li ànd sëñ Tuubaa di jëriñ kon nañu góor góorlu ci liggéey sëriñ bi te góor góorgóorlu ci bàyyi fo ak i caaxaan te bàyyi ñaaw njort kenn ku nekk loo gis ci doomu aadama donte sax ab safaan la noppil tamaanu ca yàllaay atte kenn mënta yóbbu kenn kenn mënta atte kenn nañu bàyyi di juge doomu aadama ak naan diw ni la mel di kenn ku nekk nam mel yow melu lu la ko melal di wax wax ju ñaaw ci doomu aadama te bàyyi jëw bàyyi fen bàyyi rëy te bañ a dëgg murid du bëgg daraja nañu bàyyi bëgg daraja daraja amul njariñ daraja dañoo bëgg daraja lool sama gars yi nañu bàyyi bëgg daraja amul njariñ xam lu am njariñ nekk taalibi Sëñ Tuubaa daraja ji ci gën mooy daraja ji la yàlla jox foo dem ñëpp la ñëpp la boo foo dem ñëpp yëkkati say loxo nuyu la waaye jërta xëcc jërta xëccoo boo xëccee dalay dalay dalay dalay dalay dalay dalay gaañ kon nañu góorgóorlu baax a baax a baax tey sant euh, ñi fi teew ñëpp tey wax ne tamit nañu xam ne tamit euh, sëriñ bi ni mu waxee ci ñi ko topp noonu la waxee ci ñi sant Mbàkke képp ku sant Mbàkke yaakaar sëriñ Tuubaa te teguwoo ci siraatal mustaqim na la leer na yaa boole sëñ Tuubaa yaa boole sa bopp ci sëriñ Tuubaa waaye ci boppam sëñ Bay Jaxate nee na moo jaalu dee fi waxati sëñ Bay Jaxate nee na moo jaalu dee fi waxati moo jaa fu dee fi royati moo jaa fu dee fi demati bu kilifa yi mooy ko fo àdduna yàqu na kat du ñu ñee ko kilifa yéef ak yàqukat kilifa yéef yi mooy ko fa ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu di la gontal ak xëy loo leen digal du ñu ko moy war ngaa jubal te bañ a moy kon nañu lu baax a baax temps bi xat na yitte yi bari na ñeeri waxtaan ñu ngi fi yàlla nu yàlla dolli jàmm ci barkeb euh, sunu yaakaar sëriñ Basiiru Mbàkke ci barkeb sëñ Saaliw ci barkeb sëñ Fallu mi nga xam ne euh, mooy lépp tey dañoo sonn lool lool lool lool barke sëñ Tuubaa 6 heures du matin ba léegi ñoo ngi xoolee di wër Kajoor nañ fa waaye nag daayira bi moom mënut a woote ñuy wuute kon sëñ soñe bu jërëjëf yàlla yàlla dolli jàmm ak tawféex mucc ak barke ci barke sëñ Tuubaa yàlla na yàlla yàlla ñëpp am jàmm góor ñi amul soxna yàlla ñu am soxna ñi am benn yàlla ñu am ñaar ñi am ñaar yàlla ñu am ñett ñi ñett yàlla ñu am ñeent soxna yàlla ñëpp am borom kër ci barkeb sëñ Basiru wasalaamu aleyna wa aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen waaw kay jërëjëf sëriñ Modou Diop moom sëriñ Saalix waa dëgg yàlla waxtaan wi am na solo tey wér na te it am na ay dalil yu wér yaakaar naa loolu mooy waxtaan yaakaar naa tey gën nañoo xam kan mooy ma Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké Serigne Cheikh fan ma Fatma Serigne Mbacké Madina ak Serigne Fallo bi nga xam ne mooy borom bis bi moom wax dëgg yàlla jàmbaar la ndax euh, dafa bokk ci daayira bi waaye day ñëw daayira lépp lu ñuy def daf ci def léppam yaakaar naa loolu ñëpp mën nañ koo seere te mën ngaa bokk ci daayira dem ba commencé jàng